dëgër këcc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 Amaro ne Wally dafay bàyyi wéy ak yi ni mel alors ma fas yéene waxtaan ak Baye Zale ngir rek mu daal di ciy sotti xalaat rawatina nag gën a dalal euh, xelu sénégalais Wally dafay bàyyi wéy am du bàyyi woy du ñàkk Baye dina ci indi information bu leer alors Baye Zale maa ngi lay nuyu euh, di la xamal ne encore une fois mbégte la ngir dalal la ci Dakar. maa ngi lay fay sister di nuyu Mass di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di wax ne la kontaan nañ te dalal ak jàmm. jërëjëf. alors Baye Zale yaakaar naa ne bii mooy sa sortie bu njëkk bi Mama Diaga génne àddina ak léegi euh, ginnaaw bi ma la ko jaalewaatee jaalewaat ko Sénégalais yëpp euh, ñu bëggoon xam tey naka ngeen ko dundee laata ma ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Wally Seck. oui ñoo ko bokk jaal bi ñoom la koy jaal parce que Sénégal yëpp ku nekk mën nga ko jaal sa morom euh, wax nga dëgg parce que liggéey bi dafay pause parce que àdduna moom ni la yàgg bindoo sunu yaay Diaga. yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ak ñim fa fekk yéexee ñu ñun ñi ñu mën a toog di ko ñaanal ba ci kanam kanam may njabootam bi mu fi bàyyi xol muñ voilà parce que nit moom lu mu gàtt dégg dégg dégg xam na ni deew yaay moom yombul voilà ñun jaar nañ ci xam nañ lan lay signifier voilà di waxaat ne ko muñ te xam ni tamit ñun ci yàlla la ñuy jóge te ci yàlla la ñuy dellu voilà ni moom li ba ñun comme que ci keppaaru bàññee sañ yaroo moom sa jour judd mooy sa jour dee. noonu nag déggin la maanaam sa jour bi bi nga def sa anniversaire jour nga dee voilà jour nga dee jour tamit nga juddu kon nag dee moom wax dëgg yàlla lu mystère lu mystérieux la mais que luñ comprendre la voilà moo tax nag euh, nga xam nañu foofu la ñuy mujj rek. yal nañu yàlla may xol muñ may ñu courage yàlla teg loxo ci njaboot bi ñu fi bàyyi yépp ci barki baay ak baayam. Baye Zale boo ma wax rek sa sa diggante ak Mama jaaga parce que dégg nañu façon témoignage bu nekk dégg nañu seede yu rafet yi nga xamante ni jot na koo am c'est la première fois ñu toog ak yow ginnaaw bi mu génnee àdduna ban témoignage ngay def ci moom. oui comme li Sénégalais yëpp di wax parce que man awma ak moom benn relation bu particulier dëgg rek moo neex yàlla euh, ci wàllum liggéey jaxasoo ci benn yoon la mësa am te loolu pari la woon ci doom bi mais que li ñëpp di témoigner rek parce que euh, nit ku baax la nit ku am diine la ku yar njabootam la te loolu ragal naa ni jigéen boo ko mënta seedal loolu mooy baasam voilà nit bu social voilà loolu feeñ na ci njabootam kon euh, nit mënul wax tamit lu mu xamul ci nit mais que li ngay dégg ci nit ñi rek nga mën tamit di jëlaat di ko reprendre voilà mais xam nañ ni daal yaay ju baax la woon yaay ju bëggoon njabootam la yaay ju taxawu njabootam la bien bien. ci gënoon lépp en général li ci li ma ciy gën a frappé mooy que yaay bu proche famem bu proche njabootam voilà te loolu gis naa ko ci moom ci doom bi voilà yaay ju. juy am pression la ci liggéeyu doomam te loolu moom wax dëgg yàlla sénégalais yëpp gis nañ ko seen bopp voilà def lu baaxam li moom <laughs> xam naa moom la waa li jël voilà moo tax nag wax dëgg yàlla sunu njootu rafet na ci moom te yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ci barki Cheikh Tidiane mm-hmm. li jaaxal ñëpp mooy euh, Wally Seck naka la liggéeyee parce que gis nañu ko 31 décembre mu liggéey ak li mu jot a liggéey ci fin d'année bi yëpp ndeke boobu yëpp Mama Diaga euh, peut-être mu ngi tawat li jaaxal askan wi mooy euh, Wally Seck naka la tëniiree loolu nëbb ko teewu ko liggéey fan la jëlee courage boobu. waaw xam nga ñun biñ nekkee liir suñu yaay dañ doon ñuy tettee di ñu watat di ñu moytuloo bañ dëgër. sunu waajur yi ñoo forger suñuy personalité mais que dinañ dem ba benn moment boo xam ne dootuñu nekk di doom papa la ñu nekk voilà te wala dem na ba benn niveau mu nekk papa nekkatul doom loolu nag ay déggin la voilà déggin la parce que su bàyyi génnee àdduna bàyyi la ak yow nga nekk taw bu góor bàyyi la ak yaay ak ay rak yow yaay baay bi nekkatoo doom kon loolu mën naa ko teg foofu ci état d'esprit bu bi muy amee xam ni tamit lii liggéeyam la te liggéeyam mooy teraangaam alors il est obligé mu def te yenn saa ay olof day wax ne que lu nekk ci xol dina feeñ ci kanam mais que xam naa day am exception loolu parce que parfois nga am douleur bu mag a mag mais que da ngay da ngay farafinta di di def parce que da nga war a def voilà da nga war a def moo tax ngay def parce que soo signifié wul ne lépp lu nekk sa biir xol rek après nga exposé ko ba ñëpp xam ko loolu da ngay desee nekk góor te Wally ku ko jege dinga xam ne góor la góor dëgg dëgg dëgg la te góor dafa important ci genre situation yi nga xam ko quoi Euh, ba Mama Diaga génne àddina askan wi yëpp Wally Ballago Seck lañu xalaat par rapport ak relation bi mu amoon ak moom ak jege gi mu ko jege euh, gis nañ ko ci 31 décembre bi mu rendre ko omage loolu tamit fekk si waat deseem euh, kan moo tàggee Wally yaayam bien vrai que moo nekkandoo woon ak foofu moom bitim réew kan moo ko ko tàggee. xaw ma woon kan moo ko ko tàggee hmm, parce que nekk ma fa woon. mais que xam naa ni ak képp ku la ko mënta tàggee rek lu métti la waaw parce que loolu man nekk ma ci en l'aise di wax ci loolu parce que man xam naa douleur bi waa lii amee parce que loolu ku ci jaar da nga koy da ngay xam lii lan la ko xam nga lu métti la lu métti la te du waali rek parce que mère jurul waali rek njaboot bi yëpp lu métti la moo la tey ci gone yi sax lay gën a métti parce que ñoom mën na am gone yi tey seen njëriñ seen yaay gisugu ko et que Wally yàlla dogal na ni yaayam ñaanal na ko devant tous les sénégalais xam nga baayam gis na njëriñam yaayam gis na njëriñam sëram gis na njëriñam te yàlla mënoon na ko def liir jël ko mu jël ay waajuram kon kon nag yàlla may na ko mu fekke lii yëpp sant yàlla lañuy def te xam ni yàlla moom mooy buur. te yàlla lépp lu mu dogal ci jaamam mënul jaas yeah mënul jaas bi mu ñëwee ci cimetière yi ngir denc euh, dañu gis na Wally moo doon dalal ñu bëree bëri te ñëpp ci moom la ñu tiitoon que ni peut-être du am courage pour mën a denc yaayam mais dañu gis que dafa am courage ba pare euh, ni mu doon dalalee nit mooy acte baay taxawaayu papa la taxawee voilà <laughs> baay moom su fekkee ni njaboot bi yëpp dañoo sëngee yow soo sëngee mais rek ñëpp daanu. voilà moo tax nag acte baay boobu noonu mën lay wax euh, ci début bi voilà Wally mooy baay mooy baayu xale yi mooy bàyyi ay waajuram loolu nag euh, c'est déggin la voilà <laughs> mooy seen baay moo tax nag mu déggee noonu taxawee noonu te noonu rek la mën a taxawee voilà. après décès bi euh, ñu denc ko ba pare Baye Zale toog na ak Wally Seck ku ne xam na loolu. Euh, ci moment yooyu ku ne naan waali ca lan la nekk ban état la nekk pour le moment est-ce que dina mën a am xel boo xamante ni peut-être dina mën a euh, sécuriser boppam moment yooyu Baye Zale lan nga ñu ci mën a wax. yeah dund dëyam tranquillement sénégalais yi partagé ko ak moom ñëpp ñëw jàll si ko bokk ak moom naxar bi xam nga parce que nit tamit am na dëj wét ci mm-hmm. mais waali wéetu ci te wax dëgg yàlla dund na ko ak ngor parce que naxar mën nga ko am mais nga am ngor. te Wally nit ku am ngor la dundee na ko ak ngor ak euh, dignité bu mat sëkk ba mu jàll ci jàmm xam nga mu wéyalee liggéeyam. mënuma ko xam parce que loo xam-xam Massamba Massamba gën la xam boppam mais xam naa ne sama dese yaay man li ma def su ma ko jëlee équivalence boobu xam naa ne que c'est douloureux. voilà mais que waale yi su sentiree vide waale dafa may ay support am na ay support yu solide yoo xam ne nii que moo koy may courage pour mu continuer voilà. Yeah. dañuy avancé nag ci ci leneen parce que euh, bëri na yitte yoo xamante ni da ko war a doxi ji euh, te du ñàkk euh, dinañu waxtaan ci bàyyi musique bi nga xamante ni jamono ji askan waa ngi ciy coow mais balaa ma cee ñëw Baye fi may ñëwee ak yéen mooy Wally Ballago sekk ku ne xam na ni génte génne woon na album international nekkoon tamit ci liggéey bi ngir mu gën a avancé far yàlla ndog-ndog am ñu bëggoon xam tey album boobu fan la fan la toll parce que déggoon nañ ne eggoon na à waaye album boobu mu ngi ci cursus am xam nga album moom comme vie nit rek dafay dund xam nga mu ngi ci yoonam di dem chemin xam nga ñoo ngi ciy continuer di liggéey euh, parce que ñun suñu présence foofu ak suñu ñàkk présence foofu yëpp album bi dafay continuer di dem parce que Believe ñoo ngi nekk di continuer di li ñuy war a def xam nga kon euh, impacté wul bien vrai que gis nañ ci wax ak euh, yooyu mais impacté wul parce que yoonam la bu mu jël di dem. voilà album international bi influenceurs yi nekk au niveau international soo limee da ngay juum mais ñoom ñëpp ñoo ngi ciy def liggéey bu am solo am te soo gisee nii ci réseau yi sax ñoo ngi continuer waat di def seen promo. Ousmane Diaga am na benn impact bu mu ci yaay bu génn ci kër impact la ba ci xar yi sax dañ koy yëg waaw parce que yaay mooy sàmm yaay yaay mooy lépp nit sàmm la. kon su fa génnee waxuma la sunu liggéey rek mais impact bi muy def dafay extraordinaire ba ci ñun ñi sax di xam dañuy liggéey ak rek xam nga dafay impacté voilà kon nag euh, yàlla mooy def nag nga am courage di continuer di avancer mais que métti moom fa la fa la métti yem. Euh, album bi instant bi ci ban niveau la toll. album bi mu ngi ci actuellement euh, biñ ci muccee wax ñoo ngi woon à gars yi jëndi nañ CD bi. CD bi ñoo ngi koy jënd mais ñoo ngi xaar retour ak waa Bliv vis-à-vis des résultats yi am foofu noonu comme que vérifié wuñu ko parce que bii mooy première sortie bu ma def euh, laaluñu woon dara ci liggéey bi fan yëpp ñoo ngi toog jàpp suñu ñaambur mais euh, incha allah xam naa di ngeen ci am wala di ngeen ci am ay nouvelles très bientôt incha allah. waaw waaw Wally dellu na bitim réew moo ngi nekk ci liggéeyam te incha allah le 13 avril dinañ nekk Allemagne pour benn festival boo xam ne Wally moom mooy Get Star bi foofu moom la ñu invité euh, ambassadeur euh, am mu taxawee fa comme ambassadeur alors le avril kon euh, incha allah ñoo ngi koy ñoo ngi ñaan yàlla egg ci ak jàmm. def ko jàmm ci festival bi ñu war a def Allemagne incha allah. Mhm. Mm. balaa ñoo ñëw ci ci ci date yi nga xamante ni Wally jàpp na ko parce que gis nañu Guinée bi euh, Sénégalais yëpp ngi ko doon xaar Guinée aussi ñu ngi ko doon xaar ñu pousse ko alors que décès bi nga xamante ni moom moo jotoon am dinañ ñëw ci dat yi mais dama bëgg Baye Zale euh, nga jàkkaarloog askan wi parce que jamono jii mën naa wax ni dëkk bi presque yëngu na euh, li ko waral mooy sortie bi nga xam ne Omaro def na ko ni Wally Seck dafay bàyyi way. mu jur polémique ñëpp di ci wax bu ñu toogee ak Baye Zale faaw ñu laaj ko ko ndax agent nga bu jege Wally Ballago Seck sekk Zale est-ce que mën nga ma répondre Sénégalais yi ci li nga xam ne dañ koy wax que ni Wally dafay bàyyi woon. Omar comme ni ma jegee Wally rek la ko jege ah te Omar dafa dégg rek tamit ci nit ñi influenceurs yi ku nekk di wax parce que nit ñi tamit am nañ seen opinion am nañ seen mot à li ñu gëm wala li ñu xalaat la ñuy wax parce que gis nañ Wally nekk ci benn. Euh, angle bu sombre wax ay wax xaw a codé après tombé tamit lii am ñu jàpp ni loolu foofu la ñu jëm te jëmuñu foofu Omar dëgg la mooy porte parole lu Wally mais que ci wax bi mu wax waxul exactement ni Wally dafay bàyyi woy dafa dafa def allusion rek en plus dafa waxee en tant que fans mais waxeewul en tant que professionnel parce que po la bu mu summi wax. comme chroniqueur ci télévision am après déggante nañ ci téléphone ma ne noo non waale mënta bàyyi way yow loolu waroo ko xalaat sax mu ne ma man dama waxee en tant fans waxee ma en tant que professionnel mais que waali bàyyiwul woy encore une fois xam lu le am nañ benn projet bu ñu war a génnee def nañ benn interview di mu tegu ci marché bi nit ñi di ko gis c'était loolu génne woon nañ ko dafa waroon génne le 8. le huit euh, fàtte naa mois bi mais que avant Mama Diaga di gaañu après ñu rapporté ko bàyyiwaat euh, le douze mars ko génne. waaw le non non février non euh, janvier. le huit janvier la waroon génn. après ñu téye ko ba moment bi mais que signifié wul ni ko Wally dafay bàyyi woy te Wally waragul mën a bàyyi woy léegi. voilà c' un projet bu war a génn le douze mais que vu que ni maire yi ñoo ngi ciy jooy nit ñi ñoo ngi ciy xalaat xalaat bu kii te ñun wax dëgg yàlla gannaaw bi ñu sante yàlla def yëpp tolluñu si bad buzz tolluñu si bad buzz tolluñu si euh, bëgg sénégalais yi di ñu suivre ba ñu wax loo xam ne ni ko waruñu ko wax wala waruñu ko def moo tax nag officiellement ma génn pour wax ni que. ñun on a un projet le 12 bu war a génn Wally dina ko jox sénégalais yi ok après nit yi niñ koy apprécier wee loolu ñoom la <coughs> mais que du bat buzz tolluñu si bad buzz taluñu bat buzz comprendre nga ñun on est des professionnels du métier on travaille xam nga am benn programme di topp suñu programme bien jëlee mooy Omaro euh, euh, le fait que mu ne ragal naa Wally Seck bàyyi wëy parce que am na benn déclaration boo xam ne wala émission bu mu jot def dina génn le douze askan wi yëpp tiit jàpp ni peut-être Wally moo ko nii pour mu toog ci plateau yi euh, wax li ni mel. waaw non xam nga tey jii nii moom su en général Omar suy wax day wax ni su fekkee ni Wally moo ko yónni day wax ni Wally moo ko loolu Omar chroniqueur la 2STV ci plateau boobu noonu moom ragal naa dafa supposé ragal naa nekkul lu concret. man comme su fekkee da ngay wax lu concret da ngay wax ni que lii lii la mais que ragal naa la wax te dafa supposé te que ragal naa ne capsule boobu noonu ñu Sénégal yëpp gis à part Waly ak caméraman bi doon koy tourner ak man mii kenn xamul lan la ci Waly wax comprendre capsule boobu la ci nit ñi am mais que li may wax ni kay euh, c'est vérifié tere lay wax man waa Baye waal Waly Seck caméraman bi ak Cheikh Laye ñoo xam lu ci Wally wax mais kenn xamul lu ci Wally wax mhm. voilà. sortie boobu ndax gis ngeen ampleur bi nga xamante ni am na ko réew mi coow li bari wax ji bari mu am ampleur boo xamante ni daf ko ci def. ah empleur bi nag maa ngi ciy doog rendre compte parce que dangay jot ay pas mal de messages ay wax yu xaw a daw yaram te que nit ñi foofu lañ teg Wally te que tey jii nii nii képp koo xam ne mbokkam nga yéenewoo ko mu bàyyi woy parce que woy la liggéeyam. xam nga te loolu nit ki nag mënuñu la bàyyiloo sa liggéey tey ñun suñu waajur yi bi mu génnee àdduna après dañu continuer suñu chemin voilà te loolu sax mooy fierte voilà kon loolu pour dalal xelu àdduna bi yëpp ñun ñoo ngi continuer suñu yoon di liggéey suñu liggéey incha allah le douze benn euh, yàlla nañu yàlla may ñu egg ci ak jàmm dinañ fekk ci biir koor gi xam nga ñu woor ci jàmm génn ci jàmm continuer suñuy programme parce que on a des programmes yoo xam ne nekk mu suñu kanam. bu waxee ba pare dañu dégg mbay si moom tamit tey mu xëy defaat beneen réplique def beneen vidéo ne euh, duñu seetaan Wally du bàyyi way mais dafay bàyyi way le fait que mu wax loolu gën a yokk coow li am na sax ñoo xam ne ñu ngi doon laam-laame Omaro li muy wax a ni mel mais ba mbay si waxaatee dafa gën a appuyer coow. moo xam nga Omar Omar Omar tey du n'importe qui biir Faramareen Omar su waxee wax bi mën na impacter mais wax tamit da nga koy dégg voilà nee wax danga koy wax da ngay dégg fi muy waxee chroniqueur la day supposé supposé ne wax na wax bi def na benn impact impact bi mu def euh, jotuñu déglu déglu ñàkk déglu moo waral lool mais mbay si vidéo bi koo xool xam ne day tooñ rek parce que dafay rejoindre Omar te day tooñ rek. waaw mais Seydou Jamal def na vidéo wax ci lool te c'est un guitariste de te ku proche la Cheikh def na ci vidéo wax ni que pourquoi baay woy ak yooyu noonu voilà mais lu négatif moo gaaw a dem lu négatif moo gaaw a dem mais li gën a am importance mooy que incha allah le douze juste benn projet la euh, te yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal ba ñu continuer suñu projet yëpp ci jàmm. maanaam le 12 egsi na ba pare projet bi après su génnee man ak yow ak sénégalais ñoo koy gisandoo après li ci nit yi mën a apprécier ñu apprécier ko ci. waaw première sortie Wally boobu euh, mu mu nar a euh, choix bi nekk li nga xam ne moom mooy entretien pourquoi première sortie boobu euh, ngeen ngeen choisir def loolu. waaw mais c'est ñun dañuy def musique mais autrement mun na bañ a nekk entretien voilà mën c'est xamuñu mënuma la wax. mais que en tout cas projet bu waroon génn le 8 janvier la parce que ñun staff technique artiste artistiquement artistes yàlla dafa am lu leen di may rawatina Wally Wally day prédire day sentire day yëg mooy dafa am katchu nit ku am katchu nag mën na prédire ay mbir yoo xam ne egseegul te que le 8 janvier ak tey jii ñuy wax wax 12 mars c'est que dafa am rapport am na rapport quoi voilà c'est un peu compliqué à expliquer mais que xam naa ne su génnee après sénégalais yi tamit ku nekk ni nga koy gisee mën nga koo wax waaw. après euh, le 12 boobu nga xam ne moom la ñu dëgmal te ci biir koor gi la ñuy fekk am na ñoo xam ne sax ñu ngi doon wax ne est-ce que du waali day préparé wu séddale ndogu ak yéen mel parce que le 12 dafay tombé ak li nga ne euh, moom mooy weeru koor euh, yan date nga ñu nga ñu mën a jox parce que Guinée bi wax naa la ko sànq que ngi ko doon waaj ñu ngi ko doon xaar malheureusement ñu puusaat ko tey ñëwaatal ak ñun ci date yi. oui date yi tantôt ni que dafa am ay avancé yoo xam ne jël nañ ko te suñ ko jëlee impérativement dañ ko rejouer yàlla dogal na lim dogal ci ñun promoteur yi am nañu euh, compréhension ajaat nañ ko euh, ci gine boobu ci la bokk moo tax ñu bëgg ko yóbbu le vingt ci diggante bi am nañ ci le treize Allemagne benn festival euh, après loolu anniversaire Wally ñëpp xam nañ ni ça fait deux ans trois ans defuñu ko comme que doon tombé ci koor gi ren du tombé ci koor gi incha allah dinañ ko def. dinañ ko def succès xam mu nekk sorti waali bu officiel à Dakar mhm. incha allah. d'accord gis nañu vidéo Wally Seck dem ci Zebes wala Zebes moo ñëw ci Wally sekk loolu tamit nekk na lu xaw a ci ci xelu nit ñi euh, lan nga ñuy wax tey ci vidéo boobu est-ce que Wally Seck dafa dem euh, pour liggéey ak Zebes. waaw Zebes te ñoo ngi koy nuyu au passage man fii ñu toog nii mooy studio bi mu ngi nekk ci kër gi man maa ko yor. di ci liggéey ku ma gis ni que am nga ay compétences yoo xam ne ni que tu peux apporter quelque chose ñu woo la volontaire yi Jabest sunu frère la voilà sunu frère la te que maa ngi ci ay projets yoo xam ne maa ngi koy nekk di ko liggéey nànk-nànk ku ma xalaat ni que am nga loo ma mën a jox rek fii da ngay ñëw ñu liggéey ko am ah, c'est juste ça Jabest mu nekk nit ku baax voilà loolu kese la. mais ñoo ngi ci ay projet ñoo ngi ci ay projet avec plusieurs personnes xam nga di ci nuyu ñëpp au passage. Euh, ngir ñu tàggatoo Baye Zale groupe ak Faramareen naka ngeen di dundee pour le moment toogaay bu bu yàgg bi parce que ku nekk xam na ni artiste tey euh, bu toogee lu yàgg joué wul dafay am lu mu lu muy def ci moom quand naka lañ koy dund. mooy ça parce que lii tamit du groupe rek lii industrie la euh, société la boo xam ne nii que société bu organisée la. xam nga da ngay am yërmande mais que dara du la impacté da ngay toog li liggéey parce que fii nga ma fekk man fii laay liggéey te chaque jour maa ngi liggéey ak quelque soit lu mënta xew chaque jour da nga liggéey voilà mais nag suñu liggéey bi dafa ndoog foo ba nga xam ne euh, loo ci def dañuy jàpp ne yow da ngay fo te li liggéey la boo xam ne liggéey la bu sérieux voilà man maa ngi liggéey ñi war a taxaw ci kaw scène bi mënuñu taxaw ci seen bi parce que dafa ndoog fo voilà te tamit nit ki dañ ko may temps mu def dëyam après reprendre ay activités voilà. tey ban message ngay lancé ñi nga xamante ni euh, ñi ngi doon profité ci occasion bi doon wax ni euh, Wally Seck dafa war a jaaree fii bàyyi way tey ban ban réponse ngay di ci waaw xam nga tey moom àdduna dafa baaxoo nii nit yi mën nañ toog di wax seen xalaat seen xalaat signifié wul ni que moo baax mais que xam naa ni daal képp koo xam ne juddu nga am ngay ay waajur voilà te mën nga ñàkk lépp nag amaat ko mën nga ñàkk sa doom juraat mën nga ñàkk lu ne amaat ko ba mu des nga ñàkk sa waajur yi waajur yi moom duñ ñëwaat kon nag képp ku ci jaaragul mënugoo xam loolu ñu ci jaaragul yàlla nañ ci yéex a jaar mais du jaas kon nag loo ci yéene rek na rafet ndax bis dina ñëw nga dund ko voilà. ñu ngi lay sant bu baax di la xamal ni mbégte la woon ngir euh, feggoo ak yow jotaay euh, ñu bàyyi la rek nga tàggu internet yi nga xamante ni ñoo la doon seetaan ci Dakar live ak seen buzz bi nga xam ne dab nañu ci ci liggéey bi. waay jërëjëf Dakar live jërëjëf seen buzz parce que yéen suñuy frère ngeen te jàpp ngeen ci affaire yi bu baax a baax man nag euh, wax dëgg yàlla wax ji saa ma génnee di wax rek damay bëgg wax loo xam ne nii lu am fuula la. voilà di baaluwaat ak sénégalais yi ak waa àdduna bi yëpp di leen wax ne que na seen xel dal ñoo ngi ci yoon bi projet yi mu ngi fii ñoo ngi liggéey liggéey bu mucc ayib depuis lors te incha allah di ngeen am ay contenu yu solide xam euh, ci 2024 bi niñ ko tijjee métti na mais que yàlla nañ ko jeexale ci jàmm ak salaam yàlla may ñu ñu am courage yu eggali xam di wax ni tamit euh, le 27 avril loolu moom Faramare ni rendez-vous la ci ñoom incha allahu taala wal dina ñëw sur scène def anniversaire am fii Sénégal euh, plus particulièrement CICES incha allah xam naa ne dinañ commencé di étaler promo bi pour commencer di ko def ci kanam tuuti xam di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di waxaat tamit euh, famille bi wala bi jaaga bàyyi ak coon yëpp. yàlla neen yàlla may xol muñ di ko wax euh, Mouhamed Seck Alioune Babacar Aïcha tout la famille di leen wax ni àdduna moom nii la waaw àdduna nii la te que euh, yàlla mooy dogal lu ko neex ci jaamam yàlla neen yàlla may xol muñ may leen courage yeah walaay àdduna foofu la mos a nekk voilà kon nag euh, maa ngi leen sant di gërëm jërëjëf yàlla na yàlla fay kon maa ngi koy sant bu baax moom itam di ko remercier ci kàddu yu am solo yi nga xam ne euh, jot na ko yëkkati euh, ñu jàpp ne nag amal na leen solo lépp lu nga xamante ni rek lëntoon na ci xelu Sénégalais yi ginnaaw li nga xam ne Omaro waxoon na ko ne rek ragaloon na ni euh, Wally Ballago Seck ci bàyyi wéy la daal di jëm tax mu jur polémique Sénégalais yu bëree bëri di ci wax bay Zal di agent boo xam ne ràññee nañ ko bu baax ci wetu Wally Ballago Seck indi na ci ay leeral nee parewul sax ngir daal di bàyyi di ngeen ko gis incha allah mu daal di fa benn émission la 12 bi ñu dëgmal bu ko weesoo dina def anniversaire am kon nag yaakaar naa ne amal na leen solo ak date yi nga xamante ni euh, jàppoon na ko kon ñu ngi koy sant di ko jaajëfal sant leen itam jaajëfal leen jox leen rendez-vous beneen yoon ci beneen ndaje jërë ngeen jëf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 97 97 guddi gi day neex kër gi day neex gàlle bi day neex féppay neex féppay dëgër kañ